salaamaaleykum mbokk internetu KSTV Sénégal nuyooti naa leen ziarati leen bu baax a baax a baax ñoo ngi première géej géejewaay tey li leen andil fii tey li ñu fas yéene waxtaanee seen reportage du jour mi ngi jugee ci sëy yi nga xamante ne ni dañoo seetlu ne day gaaw a tas da ngay gis sayu démb ak sayu tey bokkul xamuñu ndax looloo waral sëy yi di gaaw a tas xamuñu ndax du loolu lépp di ngeen ci am leen leer te léegi léegi lay doon incha allah man ak sama caméraman DJ Go ñooy daagu dànk na dugg ci biir. marché bi ci nit ñi fii première Guédiawaye du yomb de tey liñ nar a waxtaanee teg ko ci table ji carte la rek ah <laughs> dinañ xool ndax ci góor ñi la wala ci jigéen ñi la. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi nan la. Fat Diagne. Fat Diagne présenté ñu sa bopp carrément biir fii. waaw man la doonee jaaj yaa si njëlaat ndaag mooy Fat Seck marim jimbi eh. jimbi jimbi seeni kombay Samba ak Mbay Samba nday biram benn kombay rek fii toj. xanaa yéen joo metti ngeen lii la wax waaye lan moo tax sëyu démb ak sëyu tay ute gaa yi bëggatuñ dañuy xemmem barke yonent bu tedd ba ci Medina lu nu wax gaa yi ci bëree bëree bëri lu nu wax du dëgg commencement lañu am waaye amuñu fee lii laa wax. loolu ci góor ñi la wala ci jigéen ñi ñan ñoo ci amul ci góor ñi la ñoo indi lépp maa wax lii. lañuy ñuy wax kañuy takk da doon be. la ñuy wax ci boppam du dëgg surtout maa buñ la xisee ba takk. ba nga am doom commencé nañu lu nu wax du dëgg. léegi tas bi moom fan lañ koy féetale. mooy li ma la wax rek boo takkee jabar te li nga koy wax du dëgg bu ñu demee ba ci biir bu xamee sa jikko dootu la fonk loolu mooy indi tas gi. say ñu ne ci jigéen ñi la de indax dañuy pose xef pose we pose karaw. pause kanam lépp temps ak gannaaw ñu pause bu ñëwee ba guddi nga sumeeku rek ñu gis lépp di deñ benn par benn lañ fa fekkoon nu fa am yaay nee na jigéen ñi la. waaye loolu yàlla bañu ko yàlla nee na looy def taar booy def te du xeesal looy def pour góor bëgg la loo xam ne soo paree danga koy dindi sibu ko loolu du dara am naa sama xarit boo xamante ni dafa pose taatam ba ko jëkkëram tëddee euh, takkee mu tëdd ba guddi dafa woo jëkkër ji ne ko naxee mbaay te jëkkër ji tey la ko gën a bëgg loolu du dara de loolu euh, affaire jikko la rek nit boo ko bëggee doo xool ci moom sax taat ak yooyu non non no danga da koy bëgg te yàlla rek tax bëgg te yàlla tax moo amatul lii laa wax te damaa yàkkamti. ñu ngi lay jaajëfal doxal sa dox ba kenn lal ma diggaale ko. far yoo ñaaloo gayit naa koy naag léeg yal na mel ni sooroor ba ca Touba télé bi day dem KSTV day dem day dem lii la yàlla dogalee naag je m'en vais. ñu ngi lay nuyu maa ngi leen di fay. tur bi nan la. déglu xale bu góor bee lim la liggéey rek ngay def ñun xam laa tax ñu jubal si ci yow. ma liggéey am naa fi fanweeri at di jaay salaat. tur bi nan la. Juma Diop laa tudd ah. Juma Diop. Juma lan moo yaa Juma lan moo waral tey sëyu démb ak sëyu tey ute ah, xale yu góor yee wuute rek bu ñu gisee jigéen di lox topp ci kawam loolu kese la de ñun nag dañ doon sey ngir yàlla di jaamu suñuy jëkkër. moo taxit am nañu lu ñu neex ku jaamuwul sa jëkkër doo am lu neex ah, sey bu neex bi doom ju baax ji mosul am fenn dégg la walla du dégg voilà. léegi looloo waral kon sëy yi di gaaw a tas xanaa. ah man mën naa nekk boo boo boo nekkee jànq kay ñu naa la sëyal eh, tasal ma takk la nga tas loolu moo koy indi. ndax gis ne yéen mag ñi tey dañoo seetlu tey euh, ngeen baal ñu ak niñ ko war a wax fa ngeen nekkoon ba tey euh, di fa jaamu yàlla muy borom kër yi leen dénkoon ba tey yéen a nga fa ba am fa njaboot macha allah mais léegi gis nañ sëy weer sax du ko yegg. Ah, waaw xëy na dañoo bëgg a sëy rek waaye ku bëgg a yàlla tax doo xool dépasse doo xool dara da dem rek sayto te yàlla tax waaw. jaajëfal. waaw. nangoo liggéey am jom. man mii. ba ma juddoo ba tey maa ngi liggéey waaw xooluma sama jëkkër am na xooluma amul damay liggéey rek. waaw. tur bi nan la. bàyyi ñaan. bàyyi ñaan. waaw. waaw bàyyi ñaan noo gisee sëyu démb ak sëyu tey. seen différence. sëyu démb ak sëyu tey. ah waaw sëyu sëyu démb ak sëyu tey rek xale maanaam moo wax na moom li ci nekk moom mooy muñ rek muñ rek parce que sëy moom neexul wax dëgg yàlla moom ku ci dugg moom il nga muñ. waaw <laughs> loolu daal moom laa ci xam moom. nga gis ne waa démb ñoo doon muñ waa tey muñuñu. waaw waa démb moom ñoo dàq muñ waa tey moom wax dëgg waa tey moom waaw. léegi waa tey lan moo muñ comme fi seen yi jaaroon ndax sa yaay bu sëyee ba dee la ne la demal sëy xanaa dina ne la samay tànk jaar fa lan moo tax yow boo demee doo jaar ci ay tànkam ba tasi di gaaw. ah jamono yi nag wax dëgg yàlla suñu yaay yi moom ak suñu baay yi ni liñ liñ doon liñ doon muñ ñun moom mënuñ ko muñ suñ maanaam suñ soxna yi liñ li suñ yaay doon muñ mënuñ ko muñ ñun it liñ suñ bàyyi doon muñ ñu nit mënuñ ko muñ moo waral problème yi bëri problème yu ci ñaari côté yëpp ci ñaari côté yëpp la fi moom ci ñaari côté yëpp la moom ah, ñaata soxna nga ah, ñaar maa ngi ñaari soxna amoo bu ndaw ah, <laughs> ah kay am am naa bu ndaw si maa ngi lay nuyu maa ngi lay fay bu baax waa KSTV tur bi nan la Ami Collé Diongue madame Wade madame Wade moom xam naa ne dinañ mën a waxtaan waaw madame Wade sëyu démb ak sëyu tey ute na ah waa sëyu démb ak sëyu tey nag vraiment wute na torop sax wute na bu baax sax waaw ndax sëyu démb moom euh, ngor daf ko laloon euh, kóllëre daf ko laloon waaw waaye sëyu tey daal moom doy na waar daal wute na wute na lu bari. léegi lan moo tax comme kóllëre kóllëre ak ngor rek moo ko laloon léegi lan moo tax kóllëre googu raamul tey ba ci sëyu tey xale yi am ko ndax yow tey boo yabee sa doom di ko sëyi boo sëyee ci kóllëre xanaa boo koy yab di nga ko ne toogal ci ngor. waa xam nga sëy moom li ci am euh, xale yi léegi seen sëy ak sëyu démb man yaakaar naa maa ngi ci vingt ans de mariage kon man maa ngi bëgg a yàgg ci sëy du dëgg mais sëyu démb dañ ko doon teg ci ndigalu kilifa benn ñaar naam mbëgg dina am ndax sëy moom defe naa bu ci bëggul amul sëy bi du mën a dem mais nag di nga boole ngor di nga boole mën a muñ ndax xam nga sëy dafa metti waa boo sëyee di nga dëkk goro di nga dëkk ak njëkke di nga ay jarbaatu jëkkër dina neex dina naqari di nga gis lu ne di nga dégg lu ne mais da ngay muñ mais nag léegi xale yi tey patience boobu la ñu amul mënatuñoo muñ pour ñoom daal lépp dafa war a yomb lépp dafa war a neex looloo tax daanaka koo ci maye ren bu déwénee sëy bi daal di tas foofu daal xam naa ni gis naa fa différence muñ bi daal moo moo moo des léegi ndax léegi moom xale yi ni ñuy sëyee doy na waar sëyi apartement daal gëm naa ni lañ gën a mën a sëy toi et moi xaj ba ca bunt kër ga loolu nag du tax sëy yàgg parce que sëy dëkk kilifa yi baax na ci parce que léeg-léeg dina am jàppante yu bari yoo xam ne buy am euh, lu mu bon bon di ci sóoraale kilifa gi waaye nag yéen ñaar rek moom bu ngeen dëkkee dina neex daal ci commencement bi waaye daal ci mujjanteel gi day doy waar lool man daal gis naa ni appartement yi daal gën na tax sëyu démb ak tey am différence. waaw ñu ngi lay jaajëfal ah, xam nga ne toj nga fi. <laughs> non yéen yéen a fi toj. Cheikh Amadou Tijani na ngeen def. sant yàlla Cheikh Ahmadou Tidiane Cheikh Ahmadou Tidiane na dundee tey sëyu démb ak sëyu tey. waaw sëyu tey de moom am na yu neex am na yu am na yu naqari waaw xam nga léegi xale yu jigéen ñi moom xale yu góor yi moom ku ñu nekk sa bëgg-bëgg rek ngay topp waaye soo amee ku la yàlla boole ku baax moom jàpp ci rek te te xam ne daal sëy noonu la quoi mais xale yu jigéen nag léegi nag dañoo yàqu léegi xale jigéen dañuy bëgg sëfa bëgg dal bëgg tubay bëgg kii te duñ ko ko liggéey léegi daal mbaraan rek daal moom moom ci dëkk yi waaw ñun tamit nag ah noonu rek. <laughs> waa ñu def noonu. sëy ba daadi di gaaw daal di tas. bi daal gaaw daal di tas rek. ngeen xooli leneen ñoom ñu xooli leneen. waaw ñu xooli leneen rek ñu xooli leneen rek. lay jaajëf. yàlla na yàlla def lépp barkeel. waa seen télé bi tamit yàlla def ci jàmm rek. ngeen ngeen gën a yokk bu baax a baax. waa KSTV ca kanam ca kaw. <laughs> merci beaucoup suñu grand. noonu la ñuy daal di tëjee doon am mbégte ak kontante di ñëw fii di leen di defal seen reportage jour waaw ndax gis ngeen ni ko ñi ko wax yëpp sëyu démb ak sëyu tey mënul bokk ndax bee ngor moo ko lal ak diine ak jom xale yi nag buñ leen di muur di leen di yóbbu dinañ leen ko wax gëm muñ leen tëy leen te yàlla rek tax te ñoom du ñu sëy te yàlla rek tax nit nag. doom ndeyam da caa dëgër ndax su koy nampal da koy xool kon nag day leen di xool seen yaay yi nañu sëyee woon ak seen papa yi yéen it ngeen di fexee di ko sëyee ak seen borom kër yi ndax kat sëy yi di toog ndax sëy yi nag dafa war a toog wax dëgg yàlla ndax euh, bu njëkkoon buñ la daan muur ngay dem di sëyi sa kër jëkkër doo xam sa jëkkër sa jëkkër du la xam dañ naan la dama sa kër bàjjen diw takki fa wala dama sa kër nijaay diw takki fa buñ la demee dañ lay muur ci guddi gi bés bi ngay lekk laax ngay xam kan mooy sa borom kër kon bu njëkk sëy amoon na dëggantaan sëy tey nag Facebook la ñuy dem xamante nit ki tàppe numéro am doo ko gis du la gis ngeen daal di ñëw bésu mariage bi ngeen gisante doo leen miinante sëy ba ca war du ca am su ko defee mu daal di gaaw tas jigéen ñi sëy leen te yàlla rek tax góor ñi tee leen soxna yi te yàlla rek tax ndax déglu leen sama yaay nee na sëy xare la doom jam nañu la kon nag fexe leen xare ci war faa mën faa am doom ju baax fii la woon ma leen ko doon indil man dëgër musóor sëykat bu mag bi nga xam ne sëy naa juróom benn fukki at ak juróom ñu ñett <laughs> ay waay maa ñemee yàlla nag waa kay di jéego laa àndaloon ci caméra bi ci montage bi Chérif merci beaucoup ba beneen yoon ci beneen reportage bi ñu leen war a jëlal ciao